ñu ngi gërëm maire bi euh, vraiment si li nga xam ne matériel bi ñu joxe chaque at mu ngi mu ngi dimbali école bi euh, loolu moo tax sax si commune Rufisque Ouest si résultat yi euh, toujours commune moom mooy jël pe si IEF Rufisque commune. du si matériel yi rek la ñuy jox chaque at fu mu toll nii ren ji mu ngi tabax école El sa Moussa mu ngi tabax aussi école Mbaye Ndir école Moussa Diallo mu fa yëkëti 6 classe étage mbëndit également non la fay def té lool mo jox ko tax sax limu ñuy dimbali ni chaque at mo motax que euh, euh refus que euh, commune commune bi résultat scolaire CFE ak entre ak BFM bi résultat yi gëna jëm kaw euh, toujours ñom ñoy jël P si euh refus que commune chaque at ñun dañuy am di def ubité jang tay depuis que man ma ñëw fi début 2019 Euh, chaque at là, la avant 2019 sax nii la woon chaque at mënuñ amuñu problème mu fourniture même bu du fourniture yi sax boo demee ba si biir c'est école am problème mu matériel da nga ñëw gis mais bi mu réglé ko dar. daar. am amuñu problème boobu quoi donc ay ubbi tey jàng vraiment si yeneen communes yi peut-être day poser problème mais commune Rufisque Ouest moom vraiment du am euh, amu problème là, école yi amoon ndox war a arbeex yooyu désherber nañu euh, école yi ba am équipe de fa jaar nettoyage, nettoyer école école yi set nañu. bon ndox yi aussi am na école xam ne euh, yu am ndox dindi leen mais alhamdulilah fii suñu fi suñu commune amul amul école yi inondée waaw amul école bi inondée. liñ fi tax a tase mooy euh, comme niñ ko daan defee at yu weesu ñu toll si fukki at ak juróom euh, ñu doon jox école yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si Rufisque Ouest seen matériel yi ñu soxla pour ñu mën a def li ñuy woowee ubbi tey jàng tey si kaw loolu nag dañu. am ci suñu commune Rufus Kouès 9 écoles euh, publiques parce que 8 lañ amone au départ mais nak ak euh, capet bi nga xamantene ñu ngi xaar pour ñu bolé ko ci suñu IF mais bolé nañ ko ci ñi nga xamantene ñom lañu jox tay matériel euh ci lolu 9 écoles yi am nañu 8 écoles am nañ 4 écoles yo xamantene ñu ngi am fukki classe ak ñaar ñu am euh, ñenti école yo xamantene ñu ngi am juroom benn classe ak benn école bu am juroom ñetti classe si loolu n'ak lañu jël matériel bo xamantene matériel yi ñu xalaat ne ñom yoy lañu soxla mu tollu ci ñu xayma ko euh fukki façon matériel si fukki yoy am nañ si ay règle plate am nañu rapporteur am nañu équerre am nañu compas am nañu feuille blanche am nañu cartouche am nañu euh, am nañu compas am nañ chou am nañ éponge légui n'ak si loolu nak am nañu euh, bo bolé yépp ak neuf classes yi ñu wax sànq maa ngi si français maa ngi fàtte boole si waale ñaari casier tout près yi ñu am yooyu tamit bokk na si lim bi nga xamante ne nii sóorloo sóoroo sóoraale woon lañ leen tey alors pour ñu en tout cas mën a jël seen matériel léegi loolu boo ko xaymaa global boo jëlee lu mel ni euh, règle plate am nañ si euh, juróom-ñaar fukk ak juróom-benn règle plate noonu lañ ko to jàppee ñu amaat juróom-ñaar fukk. ak juróom-benn équerre compas seau éponge en tout cas matériel yi ñu fi xayma ba si peut-être euh, papier bi nga xamante ni euh, carton bu 5 rames lañ leen doon jox par par classe ak benn cartouche boo xamante ne da leen di permettre seen euh, imprimante yu ñu leen joxoon ay at si ginnaaw pour mu mën a Al alxames bi ñu weesu dañu si ndigalu le maire Alioune Mar dañu dem ànd ak suñu équipe yi nga xamante ne ñoo nekk fii si maire bi. Euh, ak équipe bi nga xamante ne FERA moom la ñu liggéeyal en partenariat ñu dem si école yi ñu fi lim yëpp école yëpp nag euh, nettoyé nañ ko ba bay nañ ko également ba am nañ yaakaar ne alors euh, alxames bu élèves di ñëw dinañ fekk classe wala école boo xamante ne bu mucc ayib bu leen en tout cas mën a dalal loolu nag gannaaw yàlla suñu borom si ndigalu le maire Alioune Mar lañ ko defee. comme ni mu ko daan defee rek parce que dañuy wax ne concept ubbi tey jàng tey mais na fekk alors nga jël matukaay yi ci war pour mu mën pour mu mën a antu. tey jii directeur d'école yi ñëw nañu passé nañ en revue les résultats scolaires passés yo xamné vraiment dañ nek première ci commune bi comme niñ koy defee amna 10 ans commune Rufisque Ouest toujours mooy jël pé donc loolu yépp liko waral moy liñu def tay ji moy matériel yi ñuy joxé pour ma leen accompagner jàppal leen donc maire day sacrifié day def tout son possible pour bu école di Tidji ñu mën a joxe matériel yoo xam ne école yi concept ubbi tey jàngatee ñu mën ko respecté ñun fii si commune risque west dama yaakaar ne c'est réalisable ñeneen ñi dañuy wax ne c'est pas réalisable mais fii c'est réalisable parce que plus de 10 ans ñu koy def mais les résultats aussi suivent raison pour laquelle commune bi comme ni ma koy xewoon sànq ñooy jël première ces résultats yi entre 6e CFE ñoo si jël première donc euh, maire bi le conseil municipal le le bureau municipal nous félicitons tous les maîtres ces résultats yu